suñuy taal bokk ñu ci également yàq édifice euh, jàmbur te ku waxal yàlla F24 bañ ko sosoo ba léegi euh, bañ ko sosee ba léegi euh, tàbbiwul quand même ci ay yàq ci ay toj ci ay taal ci ay wax lu ñaaw donc loolu moom approche boobu dañ leen koy nangul bu baax a baax a baax te jàpp naa ne loolu moo am solo maintenant nag comme comme intérêt nañu leen manifestation bi donc ñoom lu ñu mën a xeexee mooy yëglu ba ñu dégg leen euh, ci euh, jafe-jafe yi réew mi euh, wàllu état de droit ak li ñu bëgg ñu bàyyi le ñu bàyyi détenu politique yi ak surtout jafe-jafe yi nga xam te ni ñu ngi koy dund ñoom sénégalais yi alors Ndeye Fatou une analyse par rapport à la sortie de la plateforme F24 à la place de cette manifestation mais d'après une conférence de presse euh, à partager les euh, journalistes c'est un déjà fait waaw Mouhamed de yow liñ ci wax sax xanaa dañ ci euh, jéem a <laughs> dolli suñu kii rek. suñu hmm. grain de sel waaye wax nga lépp ci hmm. F24. Hmm. rawatina ci comportement républicain bi nga xamante ne ñi nekk ci plateforme bi am nañ ko. ndax bii mooy cinquième fois ñuy demander autorisation. ñu leen koy lankal loolu wax dëgg yàlla jàpp naa ne du dëgg du yoon ndax ñoom it ay citoyens sénégalais lañ di ay responsable boo xoolee ñi seq plateforme bi ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dayo mais bu ñu booloo ci plateforme di am lu ñuy sàkk loo xam ne seen sañ-sañ la ñu leen koy gàntalal wax dëgg yàlla day am lu muy nuru te loolu recul démocratique la. Mhm. comme ni koy xoolee ci liberté yi ak. Euh, lu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama yi gis nañu ne yooyu yëpp dafa nekk ci ginnaaw maanaam dafa reculer te loolu mhm. du yoon Sénégal dépassé na loolu surtout que lii constitution moo ko mayee def autorise demander autorisation yëglu la dañ ne foofu déclaration la. maanaam mhm. da ngay yëglu mais kuy yëglu kay kon may nañ ko sañ-sañu def li mu bëgg def. léegi nag bu ñu ñëwee bi mooy cinquième fois ñu leen koy tere loolu damay jàpp ne du dëgg di yoon yenn maanaa te en 2011 ci euh, jamono yi du mhm. daan def noonu kon nag bu ñu demee ba douze années après wala sax Euh, waaw douze années sax la. Euh, ñuy jël lu jël ci manifestation yi di ko tereel ay porte plateforme wax dëgg yàlla loolu recul démocratique la te ñoom it wax dëgg yàlla amul lenn loo xamante ne mën leen lañ ko euh, joxoñ ci baaraamu tuuma parce que it borom càkk du xeex ak borom baatu neen. Mhm. tey jii manifestation yu violente yi fi amoon lim jur ci suñu koom-koom gis nañ ko parce que prévision yi ñu amoon ci taux de croissance tey. fi mu mhm. toll nii dañ ko revoir à la que jàpp nañ ne manifestation yooyu am na ay gàllankoor yu mu jural suñu koom loolu nag kon état bi. daf cee war a tënku pour bàyyi ñi nga xamante ne dañu bëgg def ay manifestations pacifiques ñu tenir ko dans les règles de l'art ñu encadrer leen. parce que it loolu mooy li nga xamante ne mooy fonctionnement normal dans une démocratie bu dee majeure comme ni ñu koy wooyee bu Sénégal jàpp naa ne loolu moom euh, dafa war a doon la règle maanaam di autoriser les manifestations. Mhm. te bañ wax dëgg yàlla di leen koy tere. waa F24 nag comme euh, li ñu naan ngalaju moom. Mhm. du bëri du du du jeex. ñoom it nañu wut yeneen nga laju hmm. bu ñu dem gaa ci violence mais nañu diversifier les les moyens de lutte hmm. nañu jël li nga xamante ne ñu ngi leen koy teg ci di leen bañal seen i manifestation ñu jéebaane ko hmm. dem ci kilifa diina yi dem ci kilifa aada yi bu ñu fa jógee dem ci société civile jéggi Sénégal dugg CEDEAO dugg Union africaine dem ba Nations Unies comme Sénégal léegi il faut nga siiwal pour nga am li nga bëgg mais nañ siiwal lii parce que lii tamit recul démocratique la. te hmm. fii ñu toll nii ci Afrique de l'Ouest surtout nekk nañ ci zone de tension boo xam ne lépp lu jëm ci expression démocratique dañ ko war a encourager mais waruñ koo teqatal parce que moo fi indi trouble yi ñuy gis un

bu ñu bu ñu bu ñu fi ne nii ñoom nañu nañu nañu bañ a bàyyi rek. comme hmm. ñu daan bu ñu découragé. Hmm. nañu changé rek. chaque semaine ñu tenir des points de presse lépp lu ñu gis lu ñu war a dénoncer ci doxalin ñu dénoncer ko. Hmm. yor la voix rek. Euh, retenir l'opinion en haleine lépp lu ñu gis parce que bés bu ne ñu gis lu ñu war a wax. bu ñu mayee dara nañuy wax lépp bu ñu noppee dara. di def ay kii nii ay consultation citoyenne pourquoi pas veillée nocturne. maire mhm. gàddu bi kan ñëpp a ngi koy fàttaliku en 2011. nañ def maire gàddu bi ñoom it dem seenee dem tëdd ji. def veillée yooyu noonu yëpp ay méthode la. Ah. klaxon yi yooyu mais am na yeneen yoo xamante ne mën nañ di ko def. Mhm. gis nga xale yi léegi sax am na bu ñu trouvé. ñu ngi koy ñaawlu mais man moo a gënal wàcc di euh, indi fitna. muy woy yi ci ko nañ la. Mhm. fi ne ñoom nañu dem rek <laughs> fépp fu rassemblement am ñu dem rek yu fa démocratie na mën nañ la tam <laughs> yooyu noonu yëpp donc franchement F24 moom euh, amul lu ñu leen mën a waxal léegi nag état moo war a ressaisir parce que tamit euh, manifestation loolu dafa war a am mhm. loolu mënut a ñàkk te léegi dafa mel ni nag non autorisation moo devenir la règle alors que loolu moo waroon nekk l' exception te loolu faaw nit ñi nag jóg ci wax ci ku ci mën a wax nga wax ci artu dànkaafu très bien Fatou je pense que Ndeye Fatou ne l'est pas en ce qui concerne euh, point boobu parce que aujourd'hui euh, gis nga nit de xojé mm. manam mënul exprimer wu da nga koy pousser ci li nga xamné moy des actes violents parce que demande de manifestation ñëpp xam nañu ne euh, dafay pacifique ndax dinañ ko encadrer dina commencer heure dina dit heure Les loo xam ne yàqu-yàqu la dinañu ko nous avons defar mbuusu ndox yi sax da ngay gis ne bu ñu paree koy ramasser. Hmm. liñ fi encadrer ci manifestation le dispositif est gën ndaw. moins de de de force de l'ordre Nous moom la ñu fay yóbbu euh, moom mooy gën a jaar yoon que bu ñu manifestation forcing am man parfois je trouve même que le mouvement est très mou manam dafa dafa noy de trop républicain oui mais ni ko Ndeye Fatou il y a des moyens de lutte ken waxul ne nga wacc ci mbedd mi pour manifester parce que manifestation limu mu Sénégal ken ñaanatu ko yalla sunu ay rak ak sunu ay mag sunu ay jarbaat ay xale yu ndaw à la fleur de l'âge ñoom ñu ñàkk seen bakkan parce que dañu dem manifestation ñeneen ñu tiire leen à bout portant ñenn ñi ay yàqu-yàqu lañ ci jëlee ci li nga xam ne mooy koom bu den dellu dellu ginnaaw liggéey yoo xam ne tëj nañ donc kenn bëgg ko mais nag liñ naan mbéjum kanam aussi nit moo koy fajal boppam fulla bu dañee ci il faut être républicain oui mais parfois aussi il faut de la fermeté munoo à chaque fois nga déposer une demande de manifestation qui est un droit inscrit dans la constitution ñu bañal la après nga daal di def benn conférence de presse daal di dem toog au moins cette fois-ci posé nañ benn acte mooy dinañu organiser d'autres moyens de lutte maanaam génn yëngal ba ñu xamante ne lii ñu leen teg metti na parce que nit aussi euh, euh, mak bu nango yenn yi da fay am lu muy nduru munoo à chaque fois ñu lay koy téré à chaque fois ñu la koy téré à chaque fois ñu lay koy téré ba sank ñu ngi koy rappelé muy muy juróomi yoon boo xam ne ñu la koy téré cette fois ci je pense que mooy juróom lu yoon boo xamante ne ñu ngi la koy téré mm. benn manifestation nga fi defagum muy une première fois bi nga xamante ne yaa ngi doog taxawal plateforme bi nga def une manifestation bu réussir boobu ba tey mënuloo ko def aussi ñu wax ak bu ñu weesoo F24 ñu wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorisation yi di ko di ko joxe une mhm. demande de manifestation c'est le régime déclaratif ki la ko jébbal war na mën a am la réponse 48 heures bala ñu yegg ci événement bi mais da ngay toog ba xëy suba wala guddi minuit l'arrêté wàcc ñu daal ne tere nañu leen manifestation fekk na ñoom jëloon nañu ay moyens logistique euh, fexe nañ ba am ay moyens humains ñenn ñu jóge ci région yi ñëw ñu ne bañal nañ leen ko beneen bi mooy bañal gu ëpp il y a une justification insuffisance des forces de l'ordre ou trouble à l'ordre public on ne peut pas dire que pendant six manifestations il y a une insuffisance des forces de l'ordre il y a également trouble à l'ordre public alors que période est quand même gis tout est calme apaisement amna ci ci ci ci réew mi donc mënon nañu len ko bàyyil te dafay ñaawal également deru Sénégal en termes de démocratie parce que dañu fi waxoon gis nga Abdoulaye Wade l'autre jour je disais qu'il faut vraiment saluer les nga xam ne def na ko ak li lenn li nga mën ko ñaawal mais nga rafetlu indi na fi benn muy assemblée nationale faa mu dem ba deux ans ñu doon ko mën a tas loolu yëpp pour mën a ñañal démocratie beneen bi mu ñëw ne képp koo xam ne am nga lu la metti na nga takk brassard rouge mhm. c'est-à-dire que takkal morceau bu xonq pour manif pour wane ne am nga lu la metti demal nga manifester mu dem inscrit ko article 8 bu constitution bu Sénégal mhm. dem def ko fa ne ku bëgg manifester na nga dem nga manifester wu képp koo xamante ne nag am nga lu la metti bu yeggul ci benn niveau bi demal nga xëy liggéey mais takkal morso bu xonk ba ñëpp xam ne yow amul la metti mais loolu kañ lañ ko gis yow gisati nga ko takk morso bu xonk kan mooy am metti sax takk morso bu xonk kan mooy am méthode aujourd'hui nga génn da ngay manifester alors que ce sont des moyens d'expression quand même de sa colère boo xam te nit ki mën na ko def pacifiquement sans pour autant mu atteindre benn niveau de violence bi niveau de violence bi am Sénégal récemment li koy yokk mooy

il ne reste que 5 mois demb yang koy rappeler dix jours. Mm. juróomi Il fukki fan ak juróom-ñaar bo ci dindé demb mom mo dess donc li dess nañu ko au moins pour que le président de la République sorte par la grande porte. Mm. on ne peut pas dire que le président Macky Sall liggéeyul. Mm. le bilan matériel est là mais le bilan immatériel lu ko fi dese kus néew na ko ñoñal l'opposition risque de... Nous fexe ba du am un pouvoir qui gouverne une opposition qui s'oppose on ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression bu les derniers dañuy manifester nga bañ bu ñu nee dañuy def conférence de presse nga djel ñu djel ay takk der ñu taxaw barricade bërëb ba ñu koy defee su fekkee génn nañu di def li nga xamante ne moom mooy euh, la am ci ñoo